le maire Lamp waxaale ma yóbbaale leen parce que ñoo bokk monsieur le sous-préfet tout nos respect ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi nuyu sommité fi ne yëpp féliciter la jeunesse di leen encourager di waxati ni amati na mbégte ci réaction le maire Moustapha Silla. bu deful le nom rek ma xam ni kon sans waa ji xamatuma parce que boo toogee ci une jeunesse ñu def jox di nga tontu te li nga tontu def à la hauteur merci yàlla na yàlla mottali gis nga stade bu bu ñaaxeen bu tardé du ci maire AGETIP moo am nu muy doxee gis nga li muy wax ci les prix da ngay jaay tey téeméer mais bu amee quelque mois danaa la prix dafa changé yi faut nga reprendre loolu parce que ki nga jëndoon danaa prix yi amatul mais mën nañ jàpp ni stade bi dina am te stade yu moderne lay doon parce que ku njëkk a tabax lay gëna ñaawlé ñaawle ñi mujj a tabax ñooy dàqale loolu mom je di parce que Sénégal non lay doxé hein ah. ñi njëkk a tabax ñooy gën a ñaawle ñi mujj a dàqale dina am ay confort ay commodité yo xamni ni amul ki njëkk tabax amu ko woon parce que toujours état day amélioré président àll ak toute la jeunesse ah. parce que tay bima ma man. ñi daan fubal ñëpp ñëpp ñëpp samay mbokk la muy kër ale di xawl di kër galo fu ma fa dem mën naa dëkk kon nag alhamdulilah bi amee ci jàmm ak salaam ñu amati mbégte ñu tudde ko ngañ ak laa maneen jóge silmaxam loolu mooy fédéré ngañ c'est un jeune dan lay ñaanal du la sant dañ lay ñaanal yàlla aar la sàmm la ba li nga yéene ci Kajoor nga mottali ko bi ma àlla woo dama la woo rek ngan ma non benn ko Moustapha Sylla man la loolu c'est la va sans dire parce que kooku du def lu Moustapha Sylla àndul def Moustapha Sylla yëbul ngan ma kon alhamdulilah kon nag loolu dinaa la ko seedeel parce que jox ko cër moo tax nga ni est-ce que Moustapha Sylla ànd na ci man la non jotuma Moustapha de waaye xam naa ne ànd na ci parce que kooku du ay tànkam ak i lépp Moustapha ko moom kon nag ñoo leen fi cité di leen encouragé ngeen. wax ngeen de ko ak jëf ngeen ndax nag ñu ngi ci yoon wi wan leen di mu jël ki xam ne mooy léppam di confidantam di soxnaam di ko jiitu nag ndax bu nu la gisee dinañ xam ni maa ngi ci yoon ndax nag doo lay jëm wante doo lay door jigéen. yaa ngi feggoo maire bopp kenn rek la le maire Moustapha Sylla au conseil des collectivités territoriales gis nga mboolem matériel bi fi ne barki démb la fi wàcce conteneur 40 pieds ñeent fukki jéegoy ponkal mu ndekkee laaxub soow sees yi ci kaw benn du damm benn du lëmb yëpp France la jóge sens rural la tey ñaari final la voilà monsieur am na la ma woon mais baax na développé tuuti ASC Renaissance bu Kiraale ñaari final la ku na ne préparé final dafa métti. Garga la fañ jóge sori na xawlu fañ jóge sori na gis nga mbooloo mu def ci terrain bi te benn bi kenn xamul lu mu toll mun sañoon am stade. ñu culture ko bu mu daj au moins bu nit ñi doon dugg dagg billet 200 300 bu mu paree équipe bi am nañ ci gagné sax mu doon seen kees dinañ jàll à travers le monde entier fépp dinañu ko fa teg bët nga xam loolu am solo la nga xam presse rek moo ñor ci lay liggéey guddi ci lay liggéey bëccëg mu di jaxate boo ko nee loo bëgg mu di presse yàlla moo ko napp ci loolu nii leneen mën ko liggéey waaye presse la tànn muy liggéeyam place de tànn muy métier am dañ ko ñaanal yàlla ko ci yàlla defal ndam defal ko ci promotion yu kawe kenn ku ne xam na itam. ah gàttal dama la war a def loolu la quoi loolu mooy loolu. ah délégation madame normalement. loolu c'est la délégation de la arène. ah délégation madame baa ngi noonu. madame Ndeye Ndiaye. après ñu boole ñu boole officiel. parce que ñu boole bu ñu génnee. délégation délégation Mbarane baa ngi noonu madame Ndeye Ndiaye après ni bo ni bo officiel parce que ni bo bu ñu génn Ni noonu qui vient d'arriver accompagné d'une très forte délégation aussi le, le sous-préfet et le maire sont, euh, sont, en train de saluer l'équipe de Moteur Allé. Oui, il a fait non. Voilà, bu ko defee nag ku fi nekk rek da ngay jóg taxaw nag. ñii ji